dinañ supporter rek Alioune yu ñëw di nuyu gaayam di nuyu yàlla kobale di nuyu Tuwaakoto bu mbulum yàlla kobale bu Bandar ñu war a euh, bëree euh, date le 6 bi ñëw di nuyu ñëpp nag. le 6 février le 6 février. 2024 di invité ñëpp si jour bi dina xaar léegi. Euh, Tuwaakoto Tuwaakoto ñu ngi lay nuyu. day mat. maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama àndandoo toog di bëggee waa Mbulum yëpp bëggee ñu fi teew aussi waaw combat bi sama combat la quoi di arbitre soufflé moo tere dox ci kaw ndax mun maa ko bu nekk fii nii nekk ko fi bu baaxut ku ko xam ne xam ne am ñu ragal quoi buuru saal boo ko tamit xam nga ko. ñaanal jàmbur góor gi nee nekk foofu nekk fii duñ xool rek ñoom ñoom ñi ngeen xam danañ fi bés ba du ma wax dara ma ko ñaanal jàmbur gi yàlla daal nekk. non foo nga wax nag. di nuyu sama gars yëpp ñu ñëw ñu ñëwul ma ànduma ak samay nit moo tax. mu ne bàyyi dëgg ñoom ñëpp nuyu naa leen bu ñu déggee seen tukki ñoom nuyu naa leen bu leen wax kii bi dañuy ñëw maa ngi reeloo ñu ñëw maa ngi reeloo ñu ñëw léegi kon euh, gars yi ñu ngi leen di xaar ci bis ba muy le 6 di si invité ñëpp waaw di invité ñëpp yàlla boobale mu bànn ndaar ak Touba Kota bu Boulouk mu nekk réew boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar supporter yàkkam doon lamb trop amul gars yi ngeen joxal ñu loxo ñu ñaan ko ba incha allah ba incha allah ok photo